tëjal ne ko nii kii borom njaxas bi. père ba yóbbuwaat na ko mu demaat ci médecin yi. si te yàlla ci diggéey moom di wër dëppoo legetam Abdoulaye Seydou ndax dana bëriwaat. waaw Passaw kaw moom mën a bëre. man sama problème mooy même bu dee bëree sotti ci bopp ndax du ko yar ndax du. ndax du wuniwaat dëgg. nañu jëli nañu mbaa mu naan xobu mango. Ah? naan xobu Bira Sène président CNG wàcc na Pape Abdou Fall wàcc na torop Papa Sow mi ngi ci kër docteur déedéet. Papa Sow ngi noonu ña ngay discuter. du ma naan Mame Boye Diao mérité wul li moom mii directeur des domaines def déplacement ànd ak le fan la ni mujjee li ngay discuter ña ngay discuter lu nuy tënk papa jang ko kaala papa saw ñang ko kaala ñang ko léegi lu nu wax ndax dana bërëm du bëre léegi nag laama ne laama ji jeex na de laama ne laama ji jeex na de papa nee na day bëre papa saw nee na day bëre waaye ñi mu àndal ñoo bañ Sow nee na day bëre waaye ñi mu àndal ñoo bañ. déedéet. Papa Sow ci di géew ba. Seydou ndax lamb ji dana yeggam du yegg papa bëgg na combat bi loo ci mën a am papa bëgg na combat bi. wala lu ci am papa bëgg na combat bi. waaye lim génne ci dret bari na. lu ci mënti am papa Sow li mu génne ci deret bari na. ña ngi ko lëng ma ngay limee Papa Sow mi góob mën a bëre de. Seydou Kaay Seydou mii di Kaay. Seydou. Seydou nga noonu. bi bëre nga am. waaw. yaakaar mu bëre. combat bi dooñu ko bëree. dooñu ko bëree. non non ko bëree. Balla Diouf nee na combat dooñu ko bëree. ah ko jox victoire. duñu ko jox am lamba am. Ah, mënuñu ko jox victoire. en ko jox victoire. bon sii na. kala wax. yaa mi ngi doon di Ba mi ngi doon wax. boo xoolee père ba xam ne tey kontaanul. muy négocier ak yow yow yaa war a xam ne kii lii ak lii ak lii ak lii. waaw non il n'a aucun intérêt amu ci intérêt. mais boo ko jaayee doole mu jaayee la doole ndax moom moom yoon moo ko may doole. parce que vous voulez. calmez-vous rek. non ñoom lay wax ñoom lay wax. père